asalaamaaleykum mbokki Sénégal tey dañu ñëwoon fii ci Touba président Macky Sall yónni ñu fii ci xalif général euh, des Mourides Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér comme ni président fan yi euh, di yónnee it ay délégation ci kër yi yu mag yi yu waxtaan ak euh, kilifa diine yi li euh, euh, nga xam ne moom la jël ci ay matuwaay bi nga xam ne feebar bi ñuy wax coronavirus dugg na ci réew mi ba léegi euh, matuwaay yooyu nit ñi comprendre ko et nit ñi d'accord ci nga xam ne suba incha allah ñun ñëpp bu ñu àndee dégg li nga xam ne moom la état bi wax dégg li nga xam ne moom la kër docteur yi wax incha allah feebar bi dina mën a yem ba nga xam ne dina mën a génn suñu réew président bi fi feebar bi duggee léegi ñëpp dégg dañu mesure yi nga xam ne moom la jël askan wi yëpp rafetlu ko mesure yooyu bi ci njëkk mooy li mu interdire jaxasoo bi bu bari bi parce que feebar la boo xam ne day wàllaate mu ñu bëgg nag fii mu ñu yónni woon di Touba tey ñu nekk fii ñu taxaw fii ci Touba wax ne feebar boobu mu ngi ci biir réew mi feebar boobu du loo xam ne lu ñuy laame-laame la wala di ci am ñaari xel mi ngi ci biir réew mi ñi ko am xam nañ leen docteur docteur mi ngi leen di faj alhamdulilah am nañu ci tane wante li ñuy ñaan mooy mu yem propagation yem fi mu yem ah ñi feebaroon mën a tane ba dellu ci seen jàmm président nag yónni woon ma fi ci xalif euh, général kullu murid sëñ Muntaxa Mbàkke euh, ibn sëñ Mouhamadou Bachir euh, nekk yónnent boo xam ne d'abord yónnente ngërëm la ndax kenn fàttaliwul déjà kenn fàttewul bërgi déewul ah message bi nga xam ne sëñ Muntaxa joxe na ko jël lu takku yi teg ko ci loxo président teg ko ci loxo état bi ne mooy contribution pour askan wi ci faj bi nga xam ne moom lañuy ñuy faj askan wi loolu it président rafetlu ko teg ko ci loxo kër docteur yi ñu ah, koy utiliser loolu président ñu ko ci remercier ñuy remercier it euh, euh, sëñ Mountakha ndax sëñ Mountakha wane na li nga xam ne moom la kilifa gi mu doon di kilifa kullu murit di kilifa diine ci réew mi wane na li nga xam ne moom la moom la moom la yelloo mooy mu ngi ci ñaan wante nee na fagaru fagaru boobu bi ñuy demee tey ci cee jumaa ji moom ci boppam produit yi nga xam ne moom la ñuy euh, fagaroo ci mbiri euh, solution euh, hydroalcoolique moom ci boppam sëñ Mountakha jëfandikoo na ko wax na ko nit di jëfandikoo bi loolu passé it nee na jaxasoo bi ak mm-hmm. dem ak dikk bi ah lu dul farata nañu ko jéem a wàññi loolu message am ñëpp dégg nañ ko euh, defe naa sëñ Afeñan moo délivré message bi ci mm-hmm. jumaa ji mm-hmm. loolu ñoo ngi koy rafetlu ci turu président incha allah fan yi di ñëw dinañu tam président dina yónnee acteurs yëpp. Mm-hmm. pour nit ñi comprendre ne réew mi fii mu nekk dafa tollu ci ci guerre ak coronavirus et que kilifa yu mag yi ku ci nekk euh, li nga war a def yëpp ci wetu état bi ci wetu euh, euh, kër docteur yi soo nga jàppale ñu ci incha allah ba nga xam ne feebar bi dina mën a yem fi mu yem génn réew mi ñi nga xam ne. xawoon na leen a dab ñu tani ci jàmm ah réew mi continuer doxam vers l'émergence jërë ngeen jëf merci